ahousubillahi min asheytaani irajim bismillahi irahmaani irahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare noo ngi ci juróom benn fukkeelu jataay ci téereb Xalimag Leer ba tey noo ngi ci xasida ak fini ci biir xasida gi sëriñ bi mu ngi feddali cant ak ngërëm li nga xam ne sunu borom da ko da koy jëmee ci sunu borom waxtu wu nekk mun na sunu borom yow mi aji dund ji nangul ma sama kent ak samay ngërëm yépp ci lu dul sàññi muy bàyyi ko ci yow yaa xayu xamdi wa shukri ma ridaaya maan min yaxus duuna suxtin min ka yallaahu foofu dafay ñaan sunu borom rek mu nangul ko lépp luy cant ak ngërëm lu mu jëme ci moom ndax daa warloog sunu borom di ko cant fu mu toll di ko sant li des ci ak dundam lépp mooy ñaanit cant ak ngërëm yooyu merum yàlla bañ cee toppati mukk léppam rek di mbégte aj màkka gi nga xam ne sunu borom defal na ko ci baatin mi ngi ko ci tudd di ci sant daa wax ne sunu boroom yow mi man lépp ci sag mbaax nga ma sëgale ak aj màkka ak dëkkaale yonent bi sallallahu alayhi wa ak siyaare ji ko razaqtanil xajja tayyan anta muqtadirun maal jiwaari wa zawrin fii ka loolu day loo xam ne mayug sunu boroom la turu yàlla wi mu jëfandikoo foofu day tontu képp koo xam ne wax ji jaaxal na ko tur wi mooy al muqtadir mooy tekki yàlla mi aji man ji yàlla mi man lépp nag yomb na ko lool mu taxale ko ci barab mu dem aji ji siyaara ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu dul kenn di ko yëkk ci lu dul jëmmi boppam di dem ndax ku ne xam na ne sëriñ bi moom ci saaxir ajiwut ajiwut màkk waaye gis nga fii mu wax ne sunu borom taxañal na ko ba mën a def aj googu ci baatin waaye mu boole ca defal ko tawféexi dëkkaale ak yonent bi salallaahu alayhi wa sallam loolu it indi na ko ci yeneen barab ci wax na ko ci yeneen barab nee na tagg gi ma tag tag mu ne dafa wax ne tagg naa yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ba mujj naa mel ne saxaaba ya ak ay ñooñam ñamu nekkaloon ci jëm ak i xol maanaam daal na mu nekkee woon ak waa këram moom yonent bi sallallahu alayhi ci jëm ak xol waa këram nekk ak moom saxaaba yi nekk ak moom sëriñ bi tàgg na ko ba mel ba àgg foofu madaxtu rasulallaahi xataa ka ànd ni maa al ali wal ashaabi bil jismi wal qalbi dafa bëgg yonent bi sallallahu alayhi moo ko may loolu nangu koo topp lool di ko tagg fi mu toll bu mujj euh, doon ab dëkkandoom boo xam ne du tàqalikook moom mukk te loolu mu wax ko lu ba lu baree bari ci ay mbindam yu ko gën a firndeel kon noo ngi yem foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.